نكابي نيو سنوي كليفة سنوي ويجور نيانا لين يالا ساملين نيو فامي شريف يونس حيدر نعن يالنا يالا دولي لين يو نعنا الخليفة بفنك دي شريف شيخ تجان حيدر يالا دولي كوير نعنا البورتو بارولم شريف موسى حيدر يالا دولي كوير نعنا الإمام راتب شريف إسماعيل حيدر يالا دولي كوير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. xam nga cin moom buy bax boo ci sottee ndox ba mbax bi wàcc pour mu baxaat day am problème du dëgg waaye lépp yiw la euh, ki fi kiñ fi dajale wala ki ñu fi tax a toog ñu di ko waxtaane muy cheikh sayid aboubacar si pap damay wax ni doy na ci liggéeyu ndey doy na ci liggéeyu ndey nga xam tuuru sëñ babacar waxuma nga xam sëñ babacar de mais doy na ci liggéeyu ndey nit mu xam turu seigne babakar li ba xamna bo xolé haj ñu melni haj ñom ñom haj fata ñi ni mel mën nañ la ko décortiquer li tax ma wax la ko mooy boo boolee turu seigne babakar dafa am turu yàlla wu muy jàpp te turu yàlla woowu mu muy jàpp moy allah samiul alim motax mané la xam turu seigne babakar si doyna na liggéeyu ndey soo xasee xam turu seigne babakar mag ñi léeg-léeg ñu am soxla du ñu zikkar dara lu dul turu Cheikh al Khalifa duñu xëc ci benn tour lim bi ñu koy def suñ ko ko defee ba pare luñ ci ñaan yàlla yàlla nangu ko parce que loolu garaatu cheikh al xalifa la sëriñ Cheikh Tidiane si dafa wax ni cheikhul xaaji Malick ruuxam da doon dunde leer alaaj Malick musta lekk lu xaraam alaaj Malick musta lekk lu yàllay tere cheikhul xaaji malik demoon na ba tere boppam ñam wuy jóge marché cheikhul xaaji malik daawul lekk lu nuy jaay ci mbedd cheikhul xaaji Malick bi ñu ko laajee dani dagan na dara xaraamu ci waaye Malick day bañ nit romb ko ca marché ba xelam nekk ca te amul njëg gi ñu jënd ko toggal ko Malick Malick lekk ko lekk xel moo tax du du lekk lu jóge marché bi muy wax nag ni Maodo def ba ruuxam googu sell dani ruuxu alaaji Malick mi ngi dunde ci leeru sunu borom ruux nga mu ne waaye bu dee jëmm ja muy yaram wi mësul lekk lu toll ni pépp suuf ci lu xaraam yaram wépp li mu doon dunde lu lew la moo tax moom Cheikhul Hadji Malick bu mësaan a xëy day jël ñaari baaraamam yi kebale ko fii ci tikku jaraam bi xëcc ba ci mbagg yi du ke ñaari baaraam yi du écarté su écarté mu ne ah Malick ngay duufal yaram di ko yóbbuli sax te talu ko bu mësaan a kepp ñaari baaraam yi da koy ratt ba ci mbagg mi te dara du deñ man musu munumaa weesu sax fii mu ni nag leer googu nekkoon ci yaramam mu ko daan dunde moom Cheikhul Hadji Malick musul dunde lu xaram ba am loolu ci leer bi mu tëddee tawat dañu woo benn benn fajkat mu ñëw xool ko bi mu ko xoolee pare dafa génn ni sëñ kër Si lenn rek ka ma jaaxal de mooy sa baay liñ ko war a mën a defal fi mu toll nii ñun ci ay siditam lañ koy def mu jaar ci deretam wala graisam lay jaxasool te yaramam wi ñun biñ ci ndëppee suñuy appareil gisuñu ci deret gisuñu ci graisse gisuñu dara ci yaram wi ñun munuñu cee xàmmee dara ndax lumière mooy kilité ci biir yaram wi. moo tax munuñu ko mënuñu mënuñu ko sampal perfusion mënuñu koo piqûre. booba Maodo ma ngay waaj. maam Cheikh ni gis nga lépp loo gis ci El Hadj Malick ba nawe ko ko lépp loo gis ma wax ko ci Maodo ba nga nawee ko ko te mu nekk ci Maodo mu ni ni ko Maodo di jagoo jagoo sama waay sama baay bee ku ko gën a jagoo wa haa huwa jaddi qaama bil xaqi baaduhu abi wa abi awla bi kulli xisaalihi gis nga critères yi ma wax yépp ci El Hadj Malick ñu ne ah mu ni lépp ko moom waaye gis nga boo lii ma wax ci moom nag moom sama maam la ki taxaw ci ginnaawam temm mooy baayam mooy sama baay kan la mu ni Cheikh Seydi Aboubacar Sy moom la Aziz wax wax léegi yaa waarisal qutbi ak maamam nga ni ko way ma rek Aziz del wax yaa waarisal qutbi rek ma xool القربي عزيز ديال يا وارث القربي يا وارث القربي استاذ خضر يا وارث القربي قطب المكتوب موي شيخ سيد احمد التجاري شريف يا وارث الخطبه ماغي نيان كوي ديغ سما كادو فغا توك ولا يومي توك نجوك جوك تخاو ني ماغال شيخو تيجان يا وارث الخطبه يا وارث الخطبه يا دون خطبه بو ماغبي يا وارث الخطبه يا وارث الخطبه يا دون خطبه بو ماغبي يا وارث الخطبه سين بابكر بو لا دي لاج كان مو دون خطبه واخال ني شيخ الخليفه يا وارث الخطبه yaa sëñ Babacar. ñëpp am nañu cër waaye Babacar si cëram bokkul ak beneen. yaa waarisal xutbi ma. an est ce que yëglu nga ne yonent yàlla Muhammad ñi ko doon du kenn ku dul ay sa saxaabaam ci ginnaawam waaye loola mbubb la sirru ba ka ko jër mooy Fatimatu bintu Rasul te sirru ba ki ko jël ci Fatima mooy seex yu tedd ya Xasan ak Xuseyn la ca ginnaaw nag dañ koo jox Seexu Tijaani Chérif moo tax bi ko yonent feeñoo dañu Seex maa la jur maay sa baay te maay sa maam te maa la te maa la yar anaamu rabbika أنت ولدي وشيخك الأبر كل مسندي واترك جميع ما بي أخذت حتى تفوز كل ما وعدت من غير قلوة بشيخ فينيو رسول الله des bi rasulullah feeñoo cheikh ci njoowaanam la ko fekk ni ko cheikhu tidiane yëgal ni maay sa maam cheikhu tidiane yëgal ni maa la yar cheikhu tidiane yëgal ni maay sa sëriñ cheikhu tidiane yëgal ni loo am maa la koy jox cheikhu tidiane lenn rek laa bëgg nga bàyyi li nga yor ma jox la lu ko gën watruk jamia ma bi axasta hatta tafusa kulla ma waidta te kat min gayri xalwatin bàyyi bàyyil li nga yor nga jox ma lu ko gën te doo ci duggante xalwa cheikh ni ko d'accord naa waaye condition bi mooy kan Moustapha ni ko te du xam nga ma Cheikhu Tidiane ni ko xàmme naa la de Moustapha ni ko te du xam nga ma cheikh ni ko sa xet yàgg na maa xeeñ de Moustapha ni ko te du xam nga ma cheikh ni ko yàgg nga ma yàgg naa gis sa jëmm Moustapha ni ko te du xam nga ma cheikh ni ko yaay sangu adduna ak alaxira Rasulullah ni ko d'accord naa maay sangu adduna ak alaxira Moustapha ni ko d'accord naa maay sangu adduna ak alaxira waaye ndax xam nga ma laa wax cheikh ni ko yow Muhammadu Rasulillah mu ne ko romb naa foofu weesu naa muhammadu rasulillahi ndax xam nga ma cheikh ni ko xàmme naa la mm-hmm. ndax yàgg naa laa gis yaay sangu adduna ak alaxira mu ne ko romb naa foofu xanaa yëgoo ni yow cheikhu tidiane man maa la jur xanaa yëgoo ni yow cheikhu tidiane man maa la yar xanaa yëgoo ni yow cheikhu tidiane lépp loo am ci man nga ko jële bàyyil li nga yor ma jox la lu ko gën cheikh ni ko d'accord naa naa bàyyi li ma yor nga jox ma lu ko gën nabi ba cheikh d'accord Moustapha jox ko la mu koy jox alaaji abdou nag nee Tidiane kenn ko yor ñu ni ko ku ko yor mu ni Cheikh Seydi Aboubacar Sy góor gi ci pavillon doore bi boroom bonnet carré bi borom sàkkara yàlla bi boroom manto bu jot bi góor gi nga xam ni loo ko jiiñ ak lu mën a doon bu dee yàlla kese moo ko moom bu dul yàlla kese nag keneen lay doon Babacar daraam raxul yàlla moo wax moom Cheikh Al Khalifa ni ba ma fàttalikoo nday joor ak càmmoñ ba fii ma taxaw man Babacar Sy musuma fàttaliku fu ma moyee yàlla lu dol ni dee dee wuwee ñu laaj ko lan ñu laaj sëñ Babacar wax ji nga wax rëy na mu ni ba addunay tukki du ku ko wax ba àddunay tukki dootu leen ko déggaat ci gémmiñ Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku juum ba wax ko ñu fudd sa ndigg ndax wax jooju garaat la te baaba kër si daa toll ca garaat ba ñu ne maam Cheikh bi baaba kër si tolloo ci garaat bi yor yooyu cër yëpp lu tax wanewu ko woon moom sëñ kër pour ñu xam ni cër yee garaat yi mi ngi ci moom mm. déedéet alaaji Malick liggéey baayam te Maodo bëggul kuy waney cër moo tax baaba kër musta wanee cër Cheikh Al Khalifa la mu yoroon yëpp la daloon Maodo moo ko dal wilaayatuhu tabqa mada dëhru bikratan Malik li ko yàlla jox ba bi muy dugg bàmmeel waxande wa ubbiwu ca dara jëfewu ca dara ci ay kiraama lépp la denc waaye ba muy dem daa am ku mu bàyyi mu taxaw ki mu bàyyi mu taxaw mooy Cheikh Seydi Aboubacar Sy ndax leen ni Maodo la doon déedéet Babacar si daa nekk Tiwaawan ga ñii nee nañu ay joolaa lañu ñii nee nañu ay soose lañ waaye lu mën a xew ka indi laaj ba Casamance la jógee bi mu yegsee ñaar rekk ko indi woon bu toog leen ma yeggale man mi taxaw ma Casamance la jógee oustaz bi mu ñëwee ñaar rek ko indi woon mooy dañ koo wax ni ko sëñ Babacar daawul gestu beneen bi dañ koo wax ni ko sëñ Babacar boo ko woowee ak loo sori sori Babacar day wëlbatiku waaye du gestu mu jàkkaarloog sëriñ Babacar si mën na koo woode daa bàyyi ba Cheikh Al Khalifa wàcc bay dox mu doxee ko ginnaaw bàyyi ba Babacar si wan ko ginnaaw mu ni ko Babacar sëñ Babacar dajale ñaari tànk ya wëlbatiku jàkkaarloog moom ni ko labbayka ñu ni sëñ daawul gestu dëgg di gestu ginnaawam donnee Pape yëgoo ne dox di gestu jikkoy dof la Kocc Barma bi ko baayam yónnee ay dof daa génn ci buntu kër gi mbooloo romb ko mu ni hëy am ku gestu mu ni ko kaay wuyu bàyyi ndax yow ci dof yi nga bokk bi mu yegsee dani bi mu bi mu bi mu moom di ñëw wuyu si baayam daa ponkal mu toog ci garab di gor banaas Kocc ko bu banaas bi daggee ngeen ànd ñëw wuyu bàyyi fekk mag mu toog di ñëw yéreem ci kawam Kocc ni ko kaay wuyu bàyyi fekk ponkal mu taxaw ci taatu miir di tuur ndox Kocc ni ko boo paree ñëw wuyu bàyyi fekk mbooloo mu taxaw di waxtaan am ku digg d'accordu ma ñu pare laaj ko xalaat mu ne amul xalaat kocc ni ko kaay wuyu bàyyi fekk mu toog am ku tëdd di nelaw kocc yee ko ni ko kaay wuyu bàyyi dajale leen ñoom bañ mat fukk bañ mat juróom-ñeent mu yóbbu leen ci kër baayam bi mu yegsee ci gàttal baay bi laaj ko dañu ko kii day dox di gestu te dox di gestu ji dof la papa su ma ni ko woon hey mu gestu ñu dóor ko mu dee lu muy wax ma xam ni dof la kii liyee ko tax a dof kii liyee ko tax a dof kii ci balance laa ko fekk kii da doon tuur ndox ci mbedd te mën a dugg ci kër gi kii dama ko romb mu seex yéreem di ko yëy ma xam ni kuy yëy say sagar dof nga kii dama dama ko fekk mu sol yére di ko ñaw ci kawam bu ko puso bi jamee mu tutaanoos lu muy wax ma xam ni dof la kii ca mbooloo ma laa ko fekk ku wax mu ni la sa xalaat baaxul ñu ni ko yow luy sa xalaat mu ni amul xalaat ma xam ni ko amul xalaat wérul ma ni ko kaay wuyu baay kii ñëppay toog di waxtaan mu tëdd di nelaw ma xam ni wérul ma ni ko kaay wuyu baay baay nag ñii juróom-ñeent lañ yaa leen fukkeel papa ji ni ko lu tax kocc ma yónni la fukki dof nga indi juróom-ñeent mu ni ko baay yaay fukkeel yow mi jàpp ni yaa gën a ñëpp bay dajale ay dof yaay dof bu mag bi eh, moo tax ma wutal la juróom-ñeent yow mi yaa gën a wér ma def ma dof bu mag bi léegi-léegi nit ni la da ngay dof doflu man maa la gën a dof jarut a weranteel dof la te wax naa la Aziz ni la suñu réew li ko yàq bokk na ci mooy jaayante kon nit da lay def yëfi kon nga def ko yëfi kon te bu la nit defee yëfi kon nga def ko yëfi kon ñaari kon wa ngoog keneen la yëfi kon nga def ko yëfi kon ñeenti kon wa ngoog bu yàggee dëkk bépp nekk ay kon yu concret bala cee looloo am nag ku la def yëfi kon def ko yëfi nit jàmm ni ñoyu yaa waarisal xut bi ku doon xut bu ba Cheikh Seydi Aboubacar Sy آية إيه، يا وارث القطب يا دون قطب بمو شيخ تيجان الي مو اندي يونت الله محمد من اكمام شيخ مو سيدنا محمد تا يا ووت شيخ مو شيخ الحاج مالك نيت خلاف ييب سيغ بابا كرسي كو توغي سوني لا لاجي وخال بابا كرسي توغي خلاف الحاج مالك بوكول وون تي ييتيم بابا كرسي خلاتول وون سخني لولو بوكنا تي رانغام بابا كرسي لا نيكون تي موم ديغنت digganteem ak boroomam la waaye Cheikhul Xaaji Malick moo woolu sëñ Babacar si wax ko ni chaise bi ma tok sama ginnaw mak ñi yow lañ fi yaakar te wax na la ni la Aziz sëñ Babacar demandé wul pour don ko de sëñ Babacar xam nga kan moo présenté sëñ Babacar pour ñu def ko khalifa Cheikh Seydi Hadj Malick Cheikhul Omarul Fouti moo présenté Serigne Babacar si pour ñu indi ko mu nek khalifa Cheikh Seydi haj malik Cheikh Omarul Fouti mo présenter ci waxin dossier Serigne Babacar si yonti yàlla Muhammad ni ko Babacar mii laa la don wax ni xalaat na ni mo meuna don doon malik babakar mi la la doon wax ni xalaat naa ni moo mën a yor drapeau Cheikhou ti sa drapeau bi ba Cheikhou Omar mi présenté sëñ babakar si am na garaat ba ndax Cheikhou Omar wax naa la ni da daan gis yont yàlla Muhammad du janeer du gént Cheikhou Omar da daan toog ak rasulillahi di waxtaan ak moom 14 fois par jour loolu Cheikhou Omar def na ko 14 ans moog rasulillahi di toog di waxtaan ba Cheikhou Omar ci toogaayam ak yont yàlla Muhammad dem na ba miinante loolu ba laaj yont yàlla Muhammad tariqaam waaye loolu taxu ñoo jóg dama laa bëgg a wax ni la Cheikhou Omar a présenté sëñ si bi mu présenté sëñ Babacar si nitu yàlla yëpp d'accord ci saxaaba yi d'accord ci rasulullah yi d'accord ci Cheikhu Tidiane d'accord ci ñu door a wax alaaji Malick ni ko sa ginnaaw Babacar si mii lañ bëgg mu toog fi te kat lu jiitu loolu Cheikhul Haaji Malick mës na bind lettre jox ko maam Saybatu ni ko yóbbul ko maam Sidi Ahmad ca Ndar lettre ba lam ca defoon mooy wax maam Sidi Ahmad ni ko sama ginnaaw yaa may wuutu maam Sidi Ahmad jël lettre ba liir mu tas di bëgg mag jiitu rakk topp ci waaye moo a Fallou Gaye daanu mu seen sëñ Babacar di ñëw mu ne ko Alaaji Malick mi moo gën a xam ni man duma ko wuutu ndax bala fee jóge ma dem ki koy donn mooy ndaama lale di ñëw muy Cheikh Seydi Aboubacar si moom xam na ni moo koy donn moo tax moo donn xutbu ba donn maam ya donn maami xutbu bi muy Cheikhu Tidiane waaye moo donn baayam Cheikhul Haaji Malick bi bi bi Alaaji Malick nag desale desul lu dul mu génn àdduna ci la wax sëñ Babacar ni ko chaise bi yow la fi mag ñu wóolu waaye nag lenn rek moo ma jaaxal sa cell gi sëñ Babacar ni ñaanal ma ko mag ñi mooy bu ma kenn xam ba ëllëg yowmal xiyaam bugguma ci àdduna kenn xam ma fi xanaa ëllëg yowmal xiyaam Cheikh Alhaaji Malick ni ko xam naa sa jikko moo tax dagaanal naa la ko mag ñi nee naa leen Babacar bëggul ku ko xam mag ñi d'accord nañ ci ni kenn du la xam ba ëllëg yowmal xiyaam xanaa kon la ma la waxoon ni la Seyid Cheikh nee na pour ñu xam sëñ Babacar si ëllëg yowmal xiyaam lay doon kon ñun mënuñu koo xam Aziz sëñ Babacar si moomu ma lay nettali sëñ Babacar si moomu ma lay wax Cheikh Al Khalifa moomu may wax ak yow moom la Serigne Mansour wax ni soo bañee sa aajo ji réglé sëñ Mansour nee na bul dem ziyaare ji sëñ Babacar sëñ Mansour nee na soo amee soxla te bëggoo mu faju bul bul ko dis sëñ Babacar ñu laaj ko lu tax mu ni parce que Cheikh Al soo ko ziyaaree sa xol laab loo fa ñaan yàlla mu nangu man zaarahu sëñ Mansour nee na képp ku dem ba ziyaare ji sëñ Babacar bi salimil xal bi nga ànd ak xol bu laab naa la mu nan mébét moo am boo yeggee ci kanamu sëñ Babacar mu fajal la ko ñu ni Serigne Cheikh lu tax sëñ Babacar mën a faj mébét yi te nekk ci biir bàmmeel mu ni waaw mën na koo faj ndax ginnaawam lim fi bàyyi fa lim bàyyi ci ginnaawam moo gën a garaaw sax la nekk ca biir bàmmeel ba moo tax lim mën a régler ginnaawam amaana ni sax bi muy dund doonu ko woon régler waaye bi mu làqoo la ñuy door a xam li Babacar si mën a régler ginnaawam lam yabqa baadaka al min sanadin na huwa al fi xifzi al ima amaanaati mu ni Seyid Cheikh mu ni sëñ Babacar yow yaay sécurité bi sécurité sécurité boobu Aziz sëñ Babacar moomu la ñu xëy altine 25 mars ca yoor yoor Cheikh al Khalifa la gane kër rasulillahi gane kër Cheikhu Tidiane gane kër Cheikh al Haaji Malik gën a kër Cheikhu Omar loolu la ñu xëy altine 25 mars mu gane si sëñ Babacar si Tiwaawoon bu ñu la laajee waxal ni malakul mawtee ko seet si booba Babacar si li ko dese mooy mu mu tàggoo te wuyu ji boroomam Seyid Cheikh Tidiane si nee na altine la am kañ la mu ni yoor yoor la lan la lan moo ko ko wax mu ni damaa ñëw seen sëñ Babacar gis ko fi mu jaaxaan moom Cheikh Al Khalifa ni mu tëdde moom sëñ Babacar noonu laa ko bàyyee woon waaye ne bi ma yegsee li ma yéem mooy leer gi nekk ci kanamu sëñ Babacar si gi am ale te amul retour ma xam ni leer gi am ale te amul retour mooy firndel ni ruh ga ngay taggo baba keur li liko dessé ci aduna bëriwul wul waye na boba wax yombu ma man Cheikh Tidiane ndax lima tim mën ta andak wax ne mané tek degg joju mu mu mom seigne baba keur bi muy dund ne joju la andal mom seigne baba keur bi muy dund ne tek joju la andal munuma wax ndax lima gis muy genn ci khalifa munuma ko dey nit eewa mais ma koy xol leer gi di genn ma koy xol leer gi di genn ne ma ñew tim mag ñu tok ñi ngi wër Seyid Cheikh nee na ma xam ni cëgg desatul ci guy. cëggal guy. boo déggee cëgg desatul ci guy mooy jeex na. nee na may xool Cheikhul xalifa gis leer gay bët. may xool Cheikhul Khalifa gis leer bët. ne ma wëlbati xool ñi ma dendal xam ni am na ñu yëg lu xew waaye am na ñu yëgul li xew nee ma waaxu ba tollook mbagg yi dem ba tiim bopp bi di ko jàngal suuratu yaasin ne bi may jàng suuratu yaasin ba egsi ci salaamun qawla min rabbin rahim ne ci laa yëg ni ruuxu Babacar Seye ngay tàqalikook yaram waaye ba tey àdduwul moom sëñ Babacar bur benn kàddu boo xamante nit dina ko mën a dégg maam Cheikh ne ma tiim ko di ko xool rek ne sama xel ni yar ca la daloon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tiim na ko waaye amu ci pexe mm-hmm. na ko waaye amu ci pexe mm-hmm. sama xel ni yar mm-hmm. ca la daloon Fatimatu bintu rasul Fatima joxe nay kàddu oustaz bi mu tëddee ci lalu sukkuraat daa yónnee woolu Ali ibn Abi Talib miy boroom këram bi alin ñëwee Fatima ni ko lenn rek laa lay doyee ba ñu ma lay may xale bu ndaw laa ànd naag yow ba ñu amee njaboot sa bët mësta tege ci sama awra sama bët mësta tege ci sa awra su ma faatoo bu ma kenn sang nag ma sang bu ma kenn sang nag ma sang bala ngaa wax samay doom ni faatu naa génne ma kër gi bul wax mukk ni faatu naa samay doom te génne woo ma kër gi ni ko ali soo ma woree bu ñu dajeek sama maam rasulillahi dinaa ko ko wax te maa ngi lay ñaan xale yi lu maama mii ñu ma jox muy xale miinante naag xale yi su ma génnee àdduna jëlal lu ma def ko soxna mu uufal ma samay njaboot Seydina Ali ni ko teel na Fatima soo demee bàyyi ma xale yu ndaw nu may def teel na Fatima soo génnee àdduna kan mooy yar sa doom yi teel na Fatima soo demee kan moo may wéttaleeti man Ali na Abi Fatima ni ko tàggu naa la ndax gis naa sama baay moo ma waxoon moom Muhammadu Rasulillahi ni ma bis boo ma gisee xamal ni sa heure jot na moo ma waxoon ni ma su ma faatoo bu dat sàngam jotee xamal ni sa heure jot na weer yam ma waxoon mat na semaine yam ma waxoon mat na bis yam ma waxoon mat na Ali damay dem Seydina Ali ni dëmm di ko xool pexe amul boobu tamit cëgg desatul ci guy mm. Ali na Abi Taalib ne benn baat rek laa dégg Fatima di ko wax mooy subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعم تيمكو ديكو واخ ديكو واخ با لامي وي مونو توكو واخ وايي توني لاي غيس موي ييغاتو ما خامني ميغي تود بات سي بات يم دون تود توني لاي غيس خامني ميغي تود بات دي سيدنا نعم نيما تيمكو ديكو خول اماتوما سي بخي ما جيكي جيكي ديغ روح غاي ييغو مونان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يونيلو ندوخ حسن لاكو يوني ما ندوخ حسن تانك اندي علي ندوغل سي biir yónnee waat indi dugal ci biir ndox ma xaw a bari xasan ne ko bàyyi liy dugg ci ndox bari na de sama yaay munu koo naan mu ni ko yaram wee tàng day naan lenn lenn li dama ko koy sotti Seydina Xasan ni ko day naan lenn li lenn li dama ko koy sotti mayaat ma ndox mu dem jëliwaat ndox indil ko mayaat ma ndox mu dem jëliwaat ndox indi ko ndox ma gën a bari xasan ko papa wax ma li xew ci néeg bi li ma la jox ci yëpp te yaa ngi koy sotti sama yaay wala yaa ngi koy jox muy naan bu dee da koy naan lim naan ci ndox bari na mm-hmm. wax ma lu xew ci néeg bi sey naa Xasan ni ko dara xewul sa yaay daa mar ma di ko jox ndox mu naan nekke booba yaayam faatu na bu yàgg ba Ali ibn Abi Talib ba nga koy sang mhm. bi mu ko sangee ba yeggal sang ba yeggal amul ku ko ko génneel waye lima soxla moy teray ba ali nabi talib timun Fatima mu tëdd ko sëñ Cheikh neena mom la tim tiim babakar si mu tëdd ko waye ne bi ko timé diko jàngal suratu yasin ba egsi ci salamun qawlan min rabbir rahim neena ci la yek ni ruhu babakar si takali ko nak yaramam jappo nañu ñu wara genn génne babakar ci kaw tax mi suñ la laajee waxal ni fa mu dekkon fa la faatoo mom Cheikhul Khalifa ci ëttam ci negam boba la ci salam bu ndaw boba la faatoo mom sëñ babakar li ma lay wax sëriñ Abdul Aziz Al Amin momako ma ko wax ca làmmiñu boppam moni ni fi le Serigne Babacar sifato faatoo ndax jour bobo fofa lañ ko fekk mu tok ci chaise bu marron fauteuil bu marron mu fi le Serigne Babacar sifato faatoo xana xamoni nitu yàlla fa mu faatoo moo gën a fañ ko denc fa ruham doge mo gëna garaw fañ ko denc mu fi le serigne Babacar fato te xale yi dañ fi jaar ak dal kérok lool la wax. ci fofa la fato mom Cheikhul Khalifa. ñu am problème pour génne ko néeg boobu xam nga lu tax ñu am problème hmm. mooy ku toll ni sëñ Babacar ah, Oustaz kenn mënu ko tàgge mënuñu tàgge Cheikh Al Khalifa kan moo koy tàgge Serigne Cheikh Tidiane si nee na bi ma yëgee ni ruuxu sëñ Babacar tàqalikoo na ak yaramam maam Cheikh nee na dama wëlbatiku yem ci Serigne Abdoul Aziz Al Amin sëñ Abdou fi mu taxaw dafa ngëboon ay loxoom Seyid Cheikh nee na bi ma wëlbatikoo jàkkaarloog moom sëñ Abdou daa bees loxo yi ni ko Cheikh Tidiane futi nañu buñ ñàkkee Babacar si fuñ jëm ne ma ni ko Aziz ëpp naa wax xanaa yëgoon ni Babacar si mii dem ci bàmmeel yóbbaale wu fa dara lu dul bijaawam bii te diggante bii ñu ko téye lañ koy ñàkk buñ koy denc muy dëkkaat ñun ñu waajalee ko ca kaw ca néegam booba fa lañ ko préparer fa lañ ko defaree seen problème nag mooy defar nañu Cheikh xalifa ba dara desul lu dul génnee ko waaye bi ñu de bi ñu paree pour génne ko maam Cheikh ne maa génn sëpp seen ëtt bi fees dell mbedd mi fees dell te kenn tàggewul sëñ Babacar suñ la laajee waxal ni Cheikh xalifa Khalifa bokkul ci ñi ñuy tàgge kenn tàggewu ko kenn waxul kenn dara xew na tàggeel bopam ndax jaww jee njëkk a yuuxu wane ni ki ko yoroon moom ki jamono koko wan nako ginnaw fala asru asruka in amarta fala yura ila mutian bukratan wa asila jamono mo tak bum ci batam dik dénk ko sëñ Babacar si lolo tax biñu xeye biñu xeye cheikh al khalifa ruham ak jëmmam takaliko jamono moko ko yuxu a yuuxu al xusnu baada al wamtazaja lama ghada sayyid saadaati wan daraja iz yarfau al qarm bayna al qawmi mundafian ilal maqaabiri saaxat dëhru waa xaraja keroog kullun taxayyara is abuhu li manzili wala yu mayi doxal fi daari am xaraja jàppoo nañu Serigne Babacar si teg nañ ko ci jaag kenn defu ko ci kees Seydi Cheikh Tidiane si moo daaj lu kees ngir nax nit ñi pour ñu topp kees ga kees gi dañ koo takki buum yoor ko bi ñu yooree kees gi ñu daw topp kees gi fekk di sëñ Babacar a ngi ci biir bi ñuy song kees gi lañ ngi gaawantu génne jaag ji teg tëral ci sëñ Babacar bi ñu wàccee bay wàcc escalier yi ña yoroon ña toppoon kees ga topp nañu kees ga jumaa ji newu fi bayaalu kese la ak bàmmeelu sëñ Babacar si bi bi ñu toppee kees gi ñoom ñuy wàcc escalier yi sëñ Cheikh Tidiane si nee na ma gestu ñu jàppoo jaag ji tëral ci sëñ Babacar ma ne yàlla mooy karim xalifa mii nga xam ni moo daan taxaw fii ñu di ko dékk loxo Babacar si mii nga xam ni moom lañ daan tàllal loxo di ko ñaan Babacar si mii nga xam ni moom lañ daan daw di ko seetaan tey moom la ñu tëral ci benn bant bu wow dara yënguwul ci moom dara raful ci moom ma xam ne lu yàlla jox nit bis dina ñëw mu nanguwaat ko ci moom ñu wàcc ak jaag toll ci cat li dégg bruit bi ci ginnaaw ñu wëlbatiku bi ñu wëlbatikoo maam Cheikh ni leen jarul avancé bu ngeen avancé beneen néew dina am tëral leen ko foofu ñu jullee ko ñu tëral sëñ Babacar boo wàccee escalier yi soo fa demee ci jamono yi karo bu ñuul ba fa nekk foofa lañ tëraloon sëñ Babacar di ko jullee sëriñ Abdoul Aziz moo ko fa def ngir ñu xàmmee ko ko ñu tëral ko foofa pour jullee ko bi ñu ko yëkkatee sëriñ Abdou li muy ànd ak naqar yëpp ab bant la jël samp ko fa daaj ko fa moo tax ku ko ëpp vision ci àdduna nanguwuma ko moom sëriñ Abdoul Aziz Al Amin gis-gis bi daa sori li mbooloo mi bari la coow lay bari bari bi for na bant roof ko fa daaj ko pour war koo xàmmee léegi bi ñu koy karole lañ fa def karo bu ñuul ñu tëral fa sëñ Babacar Seyid Cheikh nee na maa dalal ñëpp waaye biñ tëralee Cheikh Al Khalifa ba dara desul lu dul jullee ko ne la ma doon yëg man nit ñi yëguñu ko xool naa ci kaw xool ci suuf xool ndeyjoor xool càmmoñ du garab du miir du asamaan du suuf du dara lu may gis nee na lenn rek laay gis mooy bàmmeelu Serigne kër Sy bi waaye nee na lenn rek laay gis mooy néewu sëñ Babacar Sy bi ca la doon joxar baaraam ba naan yàlla rek sañ waaye maa ngi koy wax ni jël na yont yàlla Muhammad yàlla jël na Cheikhu Tidiane yàlla jël na Cheikhu Omar mm-hmm. waaye yàlla jël na tey néew bu am personnalité yàlla dina recevoir tey néew bu ko mësta mooy nee ma wëlbatiku ni nañu ko ñaanal Baye Mbàkke see ko ñaanal ñu jullee Serigne Babacar bu pare gàddu ko wuti bàmmeel ba Seyd Cheikh Tidiane si nee na bi ñu see teg ko ci kuusu bàmmeel ngënk mu toll ni sëñ Babacar fees dell ni géej ñu gas pax mu xat war ko caa dugal mu ne kenn attanu ko waaye ko te kenn ko néew bi ñi ci biti nekk ci biir bàmmeel bi ñemewuñoo nangu néew bi ñi ci biir pax mi di xool ñi taxaw ñi taxaw di xool ñi ci biir bàmmeel bi ñi taxaw dañ naan du ma dugal sëñ Babacar ci bàmmeel ñi ci biir bàmmeel bi di xalaat ni ñoom xalaatuñoo jël sëñ Babacar di ko dugal ci biir bàmmeel ñu taxaw fa lu yàgg ñi ni fukki minute ak juróom wala lu ko ëpp kenn ku nekk di xool sa moroom Seyid Cheikh nee na bu weñ di naaw ngay dégg laafu weñ wi ndax nit ñi daa mel ni noyyeetuñu ndax Babacar si biñ tëral ci kuusu bàmmeel nit ñi daa mel ni seen bakkan yi dara génnatu ci ndax Babacar si biñ tëral ci kuusu bàmmeel nag ma tiim ko naan adduna di xaw ma ku yéemuwul waaye man yéemu naa lu tax nga yéemu mu ne ki toll ni ñu koy dugal ci pax mu xat mi loolu yéem na ma man de yéemu naa su ngeen yéemuwul lu tax nga yéemu mu ni keroog bi ñu ko gàddoo wutali ko pax ma keroog yéemu naa fa waa ajaban li yawmin qad raaytuka mustalan fi lxufrati ak it fa waa ajaban li baxril mulhadi yéemu naa ci géej gi ñuy dugal ci pax mu xat mi waaye nee na pexe amul ñu jàpp sëñ ñu teg sëñ Babacar ci kuusu bàmmeel ñi taxaw di xool ñi ci biir di xool kenn ku nekk di xool sa morom nan la koy def ba dugal xalifa ci biir bàmmeel bi Seyid Cheikh nee na bi may yëgee ni ñoom ñëpp kenn ku nekk karo bu ñuul bee fa la ñu tëraloon Serigne Babacar si di ko jullee li may wax lu amul seede baaxul boo fa yeggee daa fa fekk karo ba fee la ñu tëraloon Cheikh al Khalifa Serigne doo ko fa def biñ ko fa biñ ko tëralee ci kuusu bàmmeel bi maam Cheikh nee na ñi ci pax mi di xool ñi taxaw ñi taxaw di xool ñi ci pax mi ñuy xoolante kenn ku nekk di xool sa morom kenn ku nekk sa yéene ak sa morom mooy man du ma dugal Babacar Sy ci biir bàmmeel nee na ma yëg ni dënn bu nekk dégg te li nekk ci dënn yi bu génnul duñu rob cheikh al xalifa ne ma ni wax leen alhamdulilahi rabbil alamin wax leen alhamdulilahi rabbil alamin ñu wax ko ba muy ñetti yoon ma yëg ni li ci dënn yi rëcc na ma ne leen nañ gaaw denc góor gi balaa beneen néew a am ñu dugal sëñ Babacar ci biir bàmmeel wëlbati ko wan ko ginnaaw Seyd Cheikh Tidiane si nee na bi ñuy dox bay jubaat biir kër gi ma seen sëñ Babacar ci saal bi mu toog ma ne sëñ Pape Malick lu ma la waxoon ne woon naa la sa bàyyi bu ñu ko dencee mu wëlbatiku dikk dëkkaat ak ñun xool ko fi mu toog ma nga nee ca saal ba mu daw nar koo song mu ni ko ëpp naa def boo ko songee nit ñi song la ca la wëlbatiku nag ni yow mi ko sopp boo ko dee ziyaare ji te xat-xat am toogal fa nga toog ziyaar ko sëñ Babacar fekk si la bayni wa baynaka yaa darihal am jadi ahdun yasirru ala tariqi tajaddudi li ko ko may mooy daa doon muhammadu rasulillahi walladina maahu ashiddaw على الكفير رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا شيميهم في وجوههم من أثر السجود مصطفى موم موماي رسول موماي سيغ بكر لي مو ام نخ موي انه رسول رب العالمين موي قائد غر المحجلين موي سيد جميع الانبياء والمرسلين والذين كان نبيا وادم بين الماء والطين موي رؤوف بالمؤمنين موي شفيع المذنبين موي رسول الى كافه الخلق اجمعين كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم نبي المتقين وصاحب الحوض المورود ومقام المحمود وشفاعة العظمى في يوم الموعود إمام هاشمي له رسول قريشي له نبي حرمي له مكي مدني له أبطحي طهامي له أصله آدمي له وفرع نزاري له وحسب إبراهيمي له وبقعة حجازي له ما رسول سقلين لا بطويل زاب ولا بقطر الضاني ما أبيض اللون مشرب بالحمرة ما أقنع الأنف ما أدعج العينين ما أزج الحاجبين ما أسعر الذراعين ما برق الحبيبين ما أكحل المقلتين ما باسط اليدين ما عزيم منكبي ما ستر الكفي قامت بين قام إذا قام مع ناس أم بالقيام وإذا ما سمعه كان بغمام علي من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام باي فاطمة رقيا أم كلثوم زينب موي عين رحمة ربانيتي موي يقوتة المتحققة موي حائتة بمركز الفهم والمعاني موي نور الاقوال المتكونة موي آدم صاحب الحق رباني موي البرق للساعة بمزل الأربعة موي ملية لكل متعرض مو خم بحور لا ولا أوان يالنا يالا فايل شيخ سيدي بارك الله جرجف عبد العزيز yal na yàlla